fi moom bëri na fi place yu ñu daj guddi am na fi bëccëg am na fi ñun agressé bëccëg takk leen yóbbu seen xaalis fii moom loolu moom am na fi ay yoon yoon nga xam ne lu ci nekk ba mu amee ba noppi déclaré nañ ko police ñëw nañ def constat bi waaye mujjut fenn amul benn suivi noonu rek moom loolu la demee yi fi xew yi fi xew yëpp nga xam ne kon daanaka loolu metti nañ ñun waa marché Ocass tiis nañu ndax koo xam ne day ñëw rek attaqué la attaqué la jël sa alal yóbbu ko te def ko kenn rek ay yoon yoon lañ ko fi def ndax lu la bett lu ne dalay man ndax du fekkee ñoo xam du ñëw taxaw mel ni dañuy weccee ko wala dañuy kii jekkee attaqué la rek daal di jàpp maîtrise kenn nit xam nga ñett ko mun baa ñeent fii moom li fi am kenn mënu la ko wax amul sécurité amul dara dara dara dara loo xam ne maa loolu suñu xool sedd na ci ñun ñu xam suñu maam ñu nekk fi ci marché Ocass bi di fi daal suñu doole lenn lu suñu xol sedd la ci walum insécurité bi kenn mënu la ko wax wa ma toy mënu na mun na mënu moom def jël garde jël garde nga man jël garde def ay wër normal à part ça amoo lé loma def mais garde yi yi ñu jël ben ay xalé yu ndaw yo xam sa si moom mooy de vingt ans yaa may dégg ko xam ne si dang da koy jël mu nek euh, xey suba ci bureet di liggéey ba ngon ñu jël ben way rek ne mëna da daal bëgg liggéey yaa may dégg euh, dal la jël teg la ci teg teg la ci rek ay gaay garde nga ñëw fi ci marché bi ubi sa place ba génn dem sa yoon tok si ben benn gardien wala nga romb leen nalaw tok toog tok toog kaw bu dee di nalaw kok xam nga ne mu te mu te gardé bay jël gardé na gardé ñu qualifier ñu ko ñu ko ñu ko xam xam fa nit ñi jël gardé nga dem foofa jël leen dina fay bon pire pire bu baax ñu ma te gis seen bop wa jël ben gardé boo xam day xey ci bu dee yaa ma dégg ba 20h ba 20h ak charger bu dee ni ni meté méttee mu mu mu ngoonee mu bëgg a ñëw ne sol tenue ne day garder loolu moom c'est impossible loolu moom xel sax da ko da ko da ko da ko ma doy. problème gardien la ñu am ndax chaque jour dañuy dajji suñu plage te dañuy fay ay droit yu bu ñu sàccee duñu am fu ñu ko mën a jooytoo léegi is ko xam dañuy dajji plage am waaye doo am na lu muy am bëri lu muy am bëri na am trop ñu ko dajjee doo am fa ko jooytoo boo demee ñu wax la ne da ngaa yéex déclaré lu ci bët la ñuy wax xam nga Touba moom fi nekk am na yoo xam ne doo ko mën ndax ci ndigal rek la ñuy dox sëñ bi daal mooy suñu lépp ci lañu basé wu fii ah ñu yokk sécurité bi rek sécurité bi dañ ko yokk ndax fii dafa bari ay woyu woyu la fi ay bandee fi nekk lépp fi nekk te nag wër wëru daal wëru lépp daal ñu ko bàyyi ci loxo sëñ bi. waaw ñàkk sécurité gi man ni ma ko gisee métti na ma lool ba ci kanamu yàlla ci kaw métti gi nag mooy dajaloowaat. fas yéene dolli sécurité bi dolli sécurité bi mooy ñu fexe ba dem ci société yi nga xam ne dañoo amee gardiennage ñu jël ci ñu nga xam ne danañ mën a gardien guddi ak bëccëg yaakaar naa loolu dana dolli ci dolli ci li nga xam ni dana nu dimbali bu ñu ko defee. mooy jël ñu nga xam ne comme ni banque yi def rek wut ay gardiennage yu nga xam ne war nañu ñii am nañ am nañ am nañ seen kayit seen i diplôme ba mu mat ñu dem jël ca ñoom ñu dana gardien guddi ak bëccëg. porte yi moom yaakaar naa am na ndax li tax war naa am na sécurité mooy porte muñ fay defar dañ koy assuré nañ koy defar dana baax mais ci kaw sécurité bi moom mooy gardien bu nga xam ne rek kay kay dem di dajji bu la yëgee dana mën a ñëw jëflante yow loolu mooy yaakaar naa loolu mooy première sécurité euh, porte yi ndax maanaam néewaana nga gis porte buñ bu nga xam ni dañoo ñëw rek jekk ko ubbi ko te sonnuñu ca kon nag yaakaar naa porte yi moom am na sécurité sécurité bi moom mooy il faut que rek am ñu taxaw ñoo xam ni dañ leen am lu ñu leen ragale. lii mën moom yoroo xaw mooy tëj suñ place. loolu rek lañ moom lu weesu loolu mënuñ ci indi leneen bu du loolu en tout cas moom place boo ci gis am na xomb dañ koy tëj. waaw xont xomb xomb yi ñu di def ci biir place yi rek pour sécuriser rek xam nga borom alal moom doo sàggana sa alal luy sa war ma da nga koy def waaw. ma wax ma la ci biir marché bi dëkk bi dafa am problème manque de sécurité ci biir dëkk bi surtout marché Ocass ndax euh, boo ñëwee ci biir marché Ocass bi marché bu toll nii lamp yu nekk euh, mbedd takkut. lamp yu ko wër takkut yu nekk ci biir bi takkut c'est très grave day indi manque de sécurité eh, te loolu tamit dañ koy jooy ci kilifaay buñ mën a ñuy mën a jàppale en tant que ñun commerçant ci biir marché bi dana baax trop ndax parfois da ngay jaay bëgg a ñibbi wóoyi kaar la loolu ci biir marché bi bëccëg sax da ngay gis ñuy agressé nit ñi donc loolu boo amee ci ab gox rek loolu lu garaaw la jël nañ li ñu war a jël ay matukaay loo xamante ni valeur bu cher lay doon noonu nga cay tool da nga cay yéeg ak wàcc ba sonn waaye du mujj na ci ñu yàgg na lool mais nekk loo xamante ni mett na daal waaw matukaay yi leen dénk leen marché bi pour ñu man di doxal ci lu mel noonu loolu nag jiyee jooju bu amee danañ dem ba ci ñooñu wax leen ko li ñu naqar yu ñëw xool ñu bàyyi leen ñu ñu def seen liggéey tamit lu ci ëpp ci neen rek lay mujj daanaka ci gis ben solution. ndax biñ ko mujjé def fi ñent lan ak ak ak jigen jigéen a ci biir and ak ñom ñëw na dañuy wecceeku waaye dina ne waaw baax na leen ñu mu fa mbay ki rek ñu attaqué ko. waaw caméra de surveillance amna ndax ñom biñ ñëwé bi police ñëwé def euh, enquête bi caméra de surveillance génne na auto bi génne génne gaay waye ba légui feñul ma wóor na man li du doon yëfi état mom da nga leen japp mom xam ma nag ñun dañ leen ko jëralut wala ñoom coono bi ci nañ ko mënut xawma dal qu'est-ce qu'il y a moo tax mu jaxañ caméra de surveillance am place yu ko am mais caméra de souvent moom ci ci bi place rek la mëna garder caméra de surveillance moom daanaka moom ci ci bi place rek la mëna garder mais buntu buntu place mom amna ko am way way du ñëpp. da caméra de da ko moy lool moy lool xet xetu nappal rek na à chaque fois nga ko xam ne dañ jël bagage am day am caméra am ñëppam nga gis ñu ko ci euh, réseaux sociaux yi ma nga ne ma nga ne rek à la fin da ngay perdre li ñu mën di daal lañ sàkku di ko ñaan ki nga xam ne maanaam moo jiitee marché Ocass bépp baax yaa may dégg donte bu dee bu a góorgóorlu bu baax yaa ngi dégg loolu daal loolu ne gars yi bëccëg rek ko utilisé lay doon moom mais heure bi ñu fi nekk moom daanaka loolu lañ ci daal bariwut pour nit jël jël bagage mooy lu ci ëpp lay doon tey daanaka ñi ko ci def dañ leen di faral di gis lu bare bari. côté bi camarade Seras ñi koy wax mais man dama defa ni mbir la mu nga xamni c'est trop tard parce que day fekk ni ki la koy def def na la lim lay def ba dem yaakaar naa la fa sës mooy topp rek kii la woon ak wala ku ko xàmmee yaakaar naa fexe ba daal fàggu balaa surveillance di di ñëw. mystiquement moom daa am ñu am ñu ko gëmut yaa may man man gëmu musique du ma takk du ma naan sama lépp sëñ laa ko yaa may mais am na man dañuy takk ba seen nomba yi ba yëre yëre yëre yëre tuwaat sax mun mun mun ñu ko mun ñu ko son te ñooñu lañ dàq sàcc ñooñu la gën a jël seen alal yaa may dégg loolu moom par la ma xel la rek yaa may dégg si la rek ci xel ko koy bàyyi daal mais soo bàyyi lépp yàlla suñu borom tooñoo kenn maandu téye sa bopp nekk ci li nga war a nekk loolu rek doy na doy na takk loolu rek doy man dafa di gàllam ci laay dox waaw loolu moom kenn ku ci nekk ba ci lu man di doon nit loo xamante ne lu koy parce que aar moom kaaraange ci lépp la rawatina ci bërëb liggéeyukaay loolu moom mun ta ñàkk dëgg yàlla loolu moom mënut a ñàkk ci bërëb bi. jumukaay moom ñun moom eh, dañ di julli rek sant suñu borom rek sant Cheikh Ahmadou Bamba lu weesu loolu lu ci des bàyyi ko loxo suñu borom mais amul lenn cumbukaay bu ñu am moom ci bu ko laal. mystique moom ñu ngi ci mais nag mooy doyloo sëñ bi nag rek yaakaar naa ku nekk ci la nga war a nekk nekk ab taalibe la ngay liggéey nga bokk ko bokki taalibe yi jot naa ne lu bari dana la teggi. ah non ñun amuñu droit yor arme euh, man de personnellement duma yor arme mais nag suma lépp dama koy bàyyi ci soxo loxo Sëñ Touba euh, duñu yor arme mais jàpp naa force de sécurité yi ñooy suñu arme ñoom ñoo ñu mën a protéger protéger suñu alal ndax amuñ droit di fayal suñu bopp. ah loolu moom man maa ngi dégg ci benn colonel bu fi masoon a nekk bu yàgg mu wax ni Touba moom képp ku fi nekk kon nga fexe am sa armo ndax nit tamit tam bu diké bëgg laa paagaagal yaakaar naa boo mënee dara yow da nga fexé yow it ba mom, la ko def nga def li nga man arme mom am duñ ko yor ndax ndegam amun kayit amun nga amul kayit amun droit arme ba nga ko yor da ngay wut ay kayit ba paré sok ko yor waye nak yoy yëpp it du mën da ko mësa def mom. ndax amna yo xamné maga ko mëna fajal fajal mbéñam ko kanam mag rek koy fajal bopam. ndax loolu da metti